image am loolu laa doon bañ kon ñoom am nañ ministre boo xam ne soo Sonko nee na moo koy yónnee vidéo di ko laaj xalaat kon mën na jàppaloo procureur loolu laa koy bañal euh, comme nag avant bis bii del si déplacé nañ ko loolu rek laa ko yónnee woon pour mu déplacé wu. Hmm. te ba pare moom noo kiiyaat rek. mu kiiyaat quoi. waaw na kii daal. bañ mu gën a ko kenn euh, wutal fu muy xool. d'accord léegi nag euh, Amath Suzanne Camara moom bàyyi na ko foofu. puisque ko jël si non même bi vous ko le recours par juge juge bi yor ay solution la ko jox. Hmm, te mais solution non. non en tant que procureur wala. non en tant que procureur gis na ni eh, ki Ahmed def eh, mais gis na ne moom yóbbu ko prison rek la ci gis. Donc, ah, ah, ko ko donc ñeneen ñu def lu mel leen ba image am commencé tilim ko bañal. Hmm. D'accord. Sonko a été. kon sur corruption de la jeunesse waaw corruption de la jeunesse soo ko déggee mooy mag muy dem di yàqtaat ay yegg ci yooyu yëpp non damay leer xam nga buñ ko baat bi baat bi baat bi ñuy wax yow ko foofu rek waaw xaaral xaaral wax la waaw baat bi ñuy ci tubaab nii dama koy firi ci olof <laughs> du caage ne dama ne koo ko def corruption de jeunesse waaw corruption de la jeunesse waaw mooy magum jëmm muskalaf

loolu laay firi da nga bëgg ci loolu xaaral rek ci loolu la condamné woon ci loolu la atte woon ah ñu jàpp ne est-ce que jàppuñ ne ñoom tamit loolu mu atte d'accorduñ ci wala seen xol seddu ci hmm. l'essentiel daal affaire yaayu noonu daal réew maa ngoog yéen a ngoog juste si fay moom it affecté nañ ko moom da tooñu kenn waaye duñ ko defal promotion